bu ngeen nekkee ci biir néeg yan adversaire nga ko wax. <laughs> waaw mais mun nañu xam yan adversaire yoo xam ne tey parce que tey Ama Balde am na combat Gris Bordeaux am na komba Boy Niang am na komba Reug Reug am na combat ñan ñoo fi des. non comme Sa Thiès la waxoon. waaw bon Sa Thiès daal ciblé woon nañ ko. Mhm. Euh, ak Siteu ñoom ñoo fi desoon ci booy yi que moom objectif am mooy bëri li waxoon rek. parce su ma doonee roi des arènes xale yi laay bëreel. kon Tapha Tine bokkul woon ci liste bi. non Tapha Tine ci woon. ah lu tax. noo bokkul woon ci liste bi. ah lu tax ngeen génnee Tapha Tine ci liste bi. non mais xale yi lañ wax. xale mais mosu leen mais mosu leen bëre ak Tapha. Tapha xale waxuñu combat jànq waxuñu kii dañ ne woon. Ah. su ma doonee roi des arènes. Uh-huh. ñii laay bëreel loolu moo nekkoon suwee am. Ah est-ce que est-ce que est-ce que rëg bokk na ci ci xale yi. non rëg-rëg bokk mais rëg la te lañ gis ne moom ko bëgg. mais mais ma laaj la tuuti. Hmm. su Modou Lo bëri ak Siteu. mbokk dafa juddu. boo ñàkk ne du bëri ak euh, hmm. ak Siteu léegi làmba ji yàqu bi. Hmm. su ma juum am na ñaari séeréer yu bëri na musaa Ndiamé kan la wax lan kii lan kan ak kan Moussa Ndiamé kan. ñaari séeréer yu bëri woon. waaw lan lañ. waaw tey bokkal lañu. Hmm. mais loolu day am. waaw mais doucement rek. Hmm. Euh, xam nga làmb man li ma mënta dégg mooy Modou nee na xale lay ma chance. Hmm. te xale yi rek ci xale la bokk. lu tax waru ko may chance. lu tax war ko may chance. ba noppi ne du bëre ak Siteu ndax ak mbokk lañu. léegi kan moo Tafatin du bëre ak moom Tafatin nekk ci làmb ji. amee ah, wala kan la bëgg a bëre moom it moom nag kon laa laaj tey. Ah. en tant que ménager. en tant que ménager comme ni mu waxoon moo Papa du ñu bëre. waaw mais am na fu làmb di dox. du ñu bëre non pardon. mosu ñu bëre non du ñu bëre. Papa Sow moo déglu ah. ñu bëre. waaw mais ma toujours sama wax damay wax lu leer. waaw en attendant fii la option yi toll. mais données yi mën na changé. Mm-hmm. parce que waxoon na du bëre Papa mm-hmm. ñu boole leen claf. waaw ils sont obligés ñu bëre. Mm-hmm. wax dafay leer. dëgg la. munoon na du bëre ak Siteu wala bugguma ko bëre mais données mun na dem ba boole leen. Mhm. war toujours dama pour l' instant fii la tollagum. as mi pare na pour day am. mais adduna mun na dem ñu bëre. Ah, ah. mais Reug Reug li tax du ma bëre ak moom. waaw Franc day jàppale Modou Lo te ab Franc da bëgg a ak moom te rak ci Modou la te ñun nag nañ ne adversaire potentiel Franc la. Ah. au lieu de Modou Lo. d'accord sa rakk warul bëgg dara. mais hmm. wëlbati ko di ko jël. di ko jël waaye léegi li mu bëgg xam donc. liste mooy Star Plus Sporting partenaire numéro un bu Modou Lo. tey bu làmb doxal tey ba boole franc ak rëg. waaw rëg daan ko. Modou Lo est-ce que dina furleel. barki Seydina Mouhamad avance boobu ma ko joxe ba jël ko. nañu avancé. waaw léegi kon liste Modou fu mu toll nii. saa ci loolu damaa woon naa ko bu yàgg nee na bés bu ko daanee. Mhm. fu mu ma fekk nañu ko avancé ak man parce que man xam naa mais est que loolu na ah, fekk Modou Lo ci làmb waaw loolu la ndax Reug Reug tamit fourmi bi mu nekk nii bu fekkee ci lancé la nekk est-ce que pour mu bëri franc na yomb ndax tey ku am Boy Niang yàlla bu ko mayee tey mu daan Boy Niang dootul bëgg di question di bëri franc day gën a <laughs> gën a poussé ci kaw dëgg la loolu tamit il faut waaw non lamb lamb yaa day wooy day baax ah oui su ko Boy Niang daanee nag dafa daan Tyson 2 waaw jël soog Modou Lo dafa daan roi des arènes wàcc jël. waaw non dama ne ah, exemple la dama ne exemple xam nga tey Boy Niang su daanee su daanee Reug Reug. tey dañ daan Bombardier. Mhm. combat franc Reug Reug kenn mootu mhm. mais contraire bi su amee mooy Reug Reug daan franc Reug Reug daan daan Boy Niang Franc daan Bombardier taxul jàpp naa Reug Reug tamit a yéegal niveau ne ci Tapha Tine la jëm. wala ci Balla Gaye la jëm. Mhm. foofu la ñuy foofu lay la waaye léegi as dama bëggoon xam nga ne yow si liste liste Modou bu mu génnee Sa Thiès moo génn ak Siteu. non man ak moom bi ñu waxtaanee. waaw loolu lañ tënk. Sa Thiès parce man toujours objectif bi ñu waxoon woon mooy parce que ma doonee roi des arènes. Mhm. ñii laa bëgg a bëri. waaw. donc bëri naa ñaar ñi. waaw ñaar ñu laa jàpp ne moo fi des. Sa Thiès ak Siteu. waaw. Ah. Sa Thiès Siteu instant bi nii est-ce am na promoteur yu yuy waxaale Modou waaw am nañu coono doon wax. waaw Mm-hmm. avancé waatuma ceeg moom parce que gisante waatuma ak Modou Lo ba léegi. sori ngaa sori ngaa kooku. no jotoon nañ ci wax avant muy dem. waaw mais ba mu demee ba léegi. waaw ah. waxaatuñ si man moom. Mm. gise waatuñu daal. ban adversaire lañ leen proposé. non am na ñuy propos ñuy wax waxu Sa Thiès am na ñuy wax waxu Siteu. waaw waxu Siteu. Ah, yaakaar naa ne bon li mu aussi euh, xaw na xaw na leer. xaw na leer waaw. xaw na leer xam nga ne dafa am lu muy téye ba léegi comme ni ñu ko génnee. incha allah ba léegi rek. xaw na leer xaw na lëndëm ñaar moo tax ma xaw leer rek ñaar moo tax mu lëndëm. waaw lu tax Modou Lo bëggul bëri ak Tapha Tine lu tax xale yi mu tànn boole ci rek. man loolu moo ma jaaxal. mais expliqué na la ko. ok d'accord nangu naa d'accord d'accord na tafaatin bi la xaw mais na la tafaatin waxtaanuñ ci. mais Tapha Tine seen. potentiel moom suyam non. Mhm. xam nga nañ teg suyam suyee bële. waaw suyam mooy afro bés bu doonee roi des lii laa bëgg def mi ngi mel ni nisër. mu ngi mel ni nisër. bés ma yàlla mayee. lii laa def lii. waaw bés ma yàlla mayee lii lii laa bëgg a def. donc ci logique boobu ci lañ topp rek. mais logique bi ba muy nisër. waaw Tapha bokku ci. Ah. peut-être Tapha Tine def na fi ay jéego moo doon roi des arènes roi des arènes ñëpp bëgg a bëri ak moom ñu bëgg a dugal Tapha Tine ci course mais bokkul suñu plan. Ah. soit ñiy wax ne dañu koy mais moo avant muy bëre moom li mu nekkoon niseram. Mhm. donc niser boobu ci lañ koy respecté te ci la ñuy topp. mun na am mais logique bi ñu topp la ñuy topp ba leneen fekk ñu si. Hmm. mais mel ni bañ ne duñ bëre Papa Sow hmm. ñoo bokk parcelle. waaw waaw mujj nañ bëre ndax kalaaf moo ñu boole. Hmm. li may wax dafa clair. waaw. mun la demee. mais xam naa ne Tapha Tine. gisuma ko de. waaye bu sañoon. ci carrière am. balaa làmbam jeex mu bëri moom. mais déggoo li ma wax Modou Lo ñëpp bëgg a bëri moom. mais boo boo ñu ndaw yi ñoom si tabu ngor booy jóg mi ngi laaj Modou Lo. Mhm. Modou Lo ñëpp bëgg a bëri ak moom. roi des am. mais nag loolu aussi dafa mel ni am. Reug lu mu am. Ah. a. Ah. Ah. parce que tey ay mbëri nga fi tey pour man tey bëre ba bàyyi bëre te peut être bëriwul seen biir. tey tey comme peut être Tapha Gaye bëri Gris mais boo leen bàyyee seen carrière ngeen arrêté seen carrière sans bëri Tapha. loolu loolu loolu arrêté wuñu suñu carrière de. ah arrêté suñu carrière bu ñu arrêté suñu carrière duñ dem di négocier ay combats kon Modou Lo ak Tapha Tine daal mën nañu bëri ba bàyyi bëri. luñ c'est fort possible mën nañu bëri. nit ñi ñëw parce que maa ngi naan Tyson dama xamul xaw ma Tapha Gueye Manga xaw ma Tapha Gueye Tyson. dafa mel ni Tapha Gueye Manga waaw dafa mel ni day am combat yi ñu bëgg dynamique ak benn souhait ak benn plan de carrière bu mu nekkoon. waaw waaw waaw mais mais as mais ah. Wul Fallu. Eh, kii ma abu abu Ndour ma ñu doon bàyyi. daf la sonal de. Euh, Modou Lo tey li doon logique mooy daan naa Boy Niang daan ki nga xam ne mooy Ama Baldé. daan Eumeu Sène ma xool parcours lam benn champion la fi bëre muy muy muy muy muy muy Tapha Tine. daan Boy bi mu daan. Mm-hmm. daan Bombardier bi ko daan. daan Eumeu Sène. daan Eumeu Sène. tey yàpp naa ne su Modou Lo jógee ci Boy Niang pour Modou Lo mën a saxal boppam ci couronne roi des arènes ñu gëm ne vrai roi la. mooy daan defaat. non yow moom loolu waxu ma non non non non mais mais mais waxu monde de la lutte non non non waxu monde de la lutte yëpp wax bii ni kii wax. su ma neexee ma bañ ko parce que dama ne mën naa taxaw ne ne. Ama Baldé moo ko daan Ama Baldé laa daan. asfaw teel na pas le cas dafa ma ko. xam nga ku la nekk da ngay tracer plan de carrière. man damaa tracer plan de carrière. avant muy doon roi des arènes il faut ñu respecter soo waxee damay def sama plan de carrière pour mooy Tapha Tine d'accord nañu ak yow. non avant may bëre avant may bëre non dafa muñ ci saako yi man xam naa xam naa muñ ci saako yi ñaari yi dafa da mu ngi woon ci saako yi ngay wax loolu Tapha Tine li mu li mu gis nga ñaari mu jógee ci ñaari victoire mi li ko commencé lépp euh, fallu ñaari Tapha Tine boo boo sax génnoon ci moom déedéet si tànk ko gërëm non man bi may wax loolu bi may wax ah, loolu bi may wax loolu Tapha Tine mu ngi woon ci saako yi. déedéet kenn tudd ñu woon Tapha Tine. ma doonee nekk gu ko woon mais mais mais xam nga man lu ma bëgg xam yow as bi la Tapha bi nga toggee ak Modou Lo Modou Lo ne la Sa Thiès ak Siteu pourquoi waxoo ko ne pour pourquoi dugaloo si Tapha Tine. lan la parce que li ma la wax. <coughs> li muy wax loolu. Hmm? parce que wax ju njëkk ji la doon ba su ma doonee roi des arènes booy laay bëreel daan nañ booy bee daan beneen bi. waaw mais booy booy ñaan ñaan ñaan ñaa fi des. fi des kenn ki parce que suñu ko bëgg. mais Sa Thiès woon si combat lu yor contrat. non Sa Thiès nekkuloon si combat. si moom amoon na contrat moo Eumeu Sène. ban contrat si moo Eumeu Sène. ban contrat premier janvier bi nga daanee Boy Niang 2 ba pare xamoon nañ ne Eumeu Sène ak ak. xamoon nañ ko na ba pare. si si si taxaw na. gis nga dañu waxtaan mm-hmm. moom moo yor mbërëm. Mm-hmm. ñun nag dañu nekk ay. Euh, ay borom bopp yu xalaat. waaw mais ñaar ñi ma lay wax. kii di Tapha Tine. ak Reug Reug di Reug Reug. Mm-hmm. moom moom Modou Lo mu ngay jëm mag. Tapha Tine gaa mu ngay jëm mag waaye mag mu ànd ak kantanam la. Reug di yéeg nekk xale bu am doole. bu leen jëlul ci teel fa mu leen di jëlee lu neex ci moom. moom léegi xam nga lu mu bëgg xam aas ah, léegi instant bi Siteu euh, Modou Lo la ñuy gën a dox non non ñoom dama alfaluma bëgg bëre man waaw xam naa loolu rek bëgg waaw comprendre naa leen ko nangul naa leen ko nangul naa leen ko dama am lu may dox aas ñun bu doon dañoo bëgg bu doon tafaatin tey dafa bëgg bëre ak Modou Lo waaw du dem jëli Balla su doon Modou Lo rek lay xaar. du dem jëy Balla Gaye. mais dafa leen ko fi mu la mu wax rek li nga bëgg. ba bëree toog gis ne Modou Lo mii pare pour bëre ak man. Mm-hmm. Mm-hmm. munoon jëli da jëli Balla Gaye pour bëre ji carrière am. Mm-hmm. mais Tapha Tine ñëwul pour Modou Lo Tapha Tine carrière lay suivre. waaw te carrière bi suivre mu joon bi tey jii su fekkee ne pare na day dem xool benn adversaire bu ñu ko jox pour Modou Lo mu dem bëre ji waat. dëgg la tey jii mën naa bëre ba la jekk yor point droit seen moom. ndax ñun surtout roi des arènes topp mais topp leen eh bër waaye waaye Tapha Tine moom it. it. waroon naa mën a bëre ak rëg-rëg mu ngi koy moytu. Ah hmm. te man aussi su ma fekkoon dama nekkoon rëg-rëg man man su ma nekkoon euh, ménager. Hmm, hmm. dama ko naan demal dellu MMA. noo dem na. moom rëg-rëg nga topp tafaatin topp Modou Lo ba kër nga leen di am. non xam nga tey rëg-rëg rëg-rëg tafaatin ba ñu rëg-rëg. man su ma nee ménager loolu laa koy wax man. Ah, mais rëg-rëg combat bi am baax na. booy ñaa baax na. non xam nga xam nga xam dañuy waxtaan ci làmb rek. père muy Modou muy tafaatin. waaw tey. Boy Niang ak Reug Reug mhm. su fekkee ne Reug Reug dañ koo may benn porte boo xam ne ci lay ubbee ko waaw benn porte d'entrée porte d'entrée bi tey mooy Boy Niang bi ko may tey su fekkee dafa daan booy Niang mhm.

Franc moo ko gën a jege bu boobaa ci man parce que Franc ñi mu daan. aas Franc ñi non. aas Rëg Rëg ñi mu daan. damaa bëgg waaw. waaw laa bëgg Bombardier. daan na daan na Elton. daan na Bombardier. man maa daan na Girido. maa daan mais euh, maa daan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. gannaaw ba gis nga lamb man Serigne laa daan ñi ñu wax ñooñu ñëpp Serigne Ndiaye leen gën a nekk ci lamb. mu neex mu neex bu faas. mu neex waa lamb nga xam ne dañoo bokk ci lamb. mu neex waa dina jawaat. daan ne génn ci lamb ji. ñi nga daan nekk ci lamb ji force yëpp nañ ak rëg rëg. franc rëg rëg loxo bu fekkee ne dynamique bi ñu nekk. Mm-hmm. bàyyi ñu ko da sensé ñu ko mm-hmm. ak lu mën a xew làmb seen loxo lay mujj seen rakk ñoom jël ko ci ñoom. waaye fi ma wax ak yow Franc ak làmb ak Reug Reug ñoo war a téye làmb seen loxo amee. dëgg la ak Sa Thiès. ñett ñi ma la limal surtout Sa Thiès. sa ñaar muy Sa Thiès. waaw muy Franc muy ñett ñi su fekkee ne li ñu waa ne ci ñoom ñu ngi ci ñoom ñu jox leen ay moyens yu doy. ñoom ñett ñi ñoo war a téye làmb ci kaw ku leen fay fekk fekk leen. fekk leen foofu ñeneen ñëpp dañuy puus. ñoom hmm. ñëpp a ci yem na. dañuy puus ñett ñi gis naa buñ ko bàyyiwul dinañ nekk champion. kii di Sa Thiès kii di Reug Reug. waaw ak Franc li ñuy li ñuy entraîné. Franc ci la bokk ah Franc ci la bokk ak Franc maa ngi ko seet léegi léegi ah. li ñuy entraîné laa wax. li ñuy entraîné seen loxo lay nekk. ci kanam tuuti. ndax ay xale lañ ñoom ñooy téye lamb. ay xale lañ xam nga lu ma bëggoon xam négociation Modou Lo. gars yi soxla nañu combat Modou Lo yow yaay son manager lan nga ñu si mën a wax lu leer nañu loo xam ne dara du ko dindi. li si mën a wax. xaaral ma gisante ak moom rek en tout cas daal. Ah, non <laughs> eh, wax. mais ñi ñaa ñi ñaa ngi naan ne aussi day bàyyi. est-ce que nekkul aussi dañuy est-ce que nekkul aussi dañuy dañuy gëlëma may ko mu gisee ak Modou Lo après non mais moom lu ma la mën a wax mooy bàyyiwul dafay bëre. may ko bàyyiwul làmb. déedéet. Ah. waaw bàyyiwuma damay bëre. bàyyiwuma làmb damay bëre damay bëre waaw. Ah. kon moom déggoon na wax. champion du sooxaale euh, blessure blessure waaw sama loxo dama gaañ kon déggoon na ne coow ne day bàyyi bëre day bàyyi bëre. non man yàgg a dégg coow loolu. waaw muy bëre ak Ama Modou bàyyi na bàyyi na. Mhm. Ah, man la laal ma sa wax. léegi ban combat moo gën a jege euh, Modou Lo Siteu wala Modou Lo euh, Sa Thiès. ñaar yëpp daaw après ñu si négociation yi. ban moo si gën a sori laa bëgg wax. non ñaar yëpp presque ñoo yem. ñaar yëpp ñoo yem. kon mun nga jëlandoo ñaari avance. ah pourquoi pas. Ah. jël loolu ñaari avance loolu dafa xew. dafa xew. te Aziz Ala loolu la ma conseillé sax ne booy jël jëlal ñaar ma koy nuyu de mais actuellement est-ce que amoo avance bu ñu la jox nii nga téye. yow jot non laajoon nga ma ko wallaahi ma ne la amul. amul yaa ngi insi barke alxuraan amul. mu loolu laalul dara fu mu dolli. laalul avance laalul avance balaa ngay laal avance kay. classe Fallou Ndiaye gi dina la jox xaalis te duñ ko bind fenn duñ ko sañ a fenn. <laughs> man promoteur mooy jox xaalis ci ci dégg naa ak naa ci mais sa préférence yow en tant que manager Sa Thiès wala Siteu. sama préférence mooy li Modou loo bëgg mooy man doon naa roi des arènes ñaari xale yi raatale xale yi ba pare. non raatale ñaar ba pare. xale yi dañoo bari. ñaar as dañuy waxtaan rek. waaw léegi lamb moom yoonu lamb. léegi lamb da nga toog xam nga sànq dañoo xam nga sànq dañoo wax nga ne ma nekk fi nga. soo toogee fii te grand yi ba te grand yi ba am na leneen lu ci nekk. kon ñaari xale ñu nekk ci lamb ji am na leneen lu ci nekk ci lamb ji loo xam ne nii. waaw tey Modou Lo mën na jël saa yow nangu ngeen di nga mën na jël saa jël saa yow mën na jël saa xëy na xale yi. déglu déglu lu kii wax ah, Modou Lo li cool yi bari bari mën na jël Sa Thiès da bëri Eumeu Sène a ndax mu ngay xool verdigu Sa Thiès Eumeu Sène dafa am solo loolu tamit luy joué la ci dafa ñàkk combat bi du bëre Sa Thiès. non du xam nga loolu waaw moo tax may amul combat moom Siteu amul combat. waaw léegi ba tey bu boobaa ñu jël. mais foofu mais foofu aussi qu'on se dise la combat mënu fa am bu ko jëlee combat mënu fa am nañu waxante dëgg. c'est vrai Siteu Modou yow mënoo nga ne kii sëram day sëyi kër kii foofu ah. lamb lamb fa am par rapport tey lamb li mu laaj qu'on se dise la vérité rek. mais nag Boucar ma xamal la ñaar mën na nekk ma xamal la ñaar mais tey. waaw euh, euh, Boucar euh, tey. la ñaar spectacle bi ñu ciy xaar grand. waaw ma xamal la ñaar Boucar. grand reyante bi ñu ciy xaar. waaw mais déglu ma wax la. derby bi ñu ciy xaar. grand gis nga gis nga Boucar tarkindaa lu muy yàq. attends c'est-à-dire non attends même pour Siteu ci moom wax la ko physiquement. mënut a ne dina ànd wax la loo xam te ni yow doo doo. mais Euh, as euh, as euh, Siteu ak ñu àndal. as frère Siteu mënul di fanaan kër ñu Modou Lo. frère Siteu. di fa di dem di fanaan mënul fanaan kër ñu Modou Lo. waaw ba pare foofu combat mun fa am. par rapport ak li mu laaj. la vérité man de d' accord ma ci moom d' ma ne foofu même bu combat bi taxee man d' ma ne lamb dëggantaan dina fa am ak par rapport ak lamb laaj. as mën nañ mayante xaalis nag. non lamb bon Bougar bul bul bu taxawee. as business dafa am. mais làmb ak la maanaam li amateur yi di xaarandi tey ci mbër mhm. ci ñaari mbër yi côté spectacle côté bëre du ñëw ci làmb nit jëppi ko Modou Lo du ñëw ci làmb nit jëppi ko mais mbokk bu wax loolu mais am na boo xam mbokk bu dugg foofu gis nga bu xasee taxaw ba ñu signé ba ku nekk la avance ah. lépp lu ñu war teg askan bi waxtado promoteur yi dinañ ko def ñoom ñaar mosuñ dugg ci làmb ñu jëppi leen bu wax loolu ah est-ce que kersa du fa am kersa dina fa am sóoraale dina fa am. waaw mu loolu mu loolu commencé amoon nañu sóoraale. nga ne. non jamono jooju. bokkul ak jamono bii dara amul loolu jamono boobu bokk amul kii nekk Fass kii nekk Rangane Fass. mais doon sëy kër Fallou Ndiaye mii dina am loo am urus def bokk bi. dina am loo xamante ne dina am dafa nekk xale bu bëgg a dem bëgg a ndam. waaw ko bàyyi kenn. dëgg yàlla mu lu gëm ndam ci boppam mais père relation deret deret deret dafa sacré père deret dafa fort de ñaar ñaar ndam si yàlla si deret père ak ndey gay ñoo dëkk nañu bëri nañu mhm. Mbaye Gueye ak ko yow en tant que promoteur waaw non combat bu neex la combat bu a am non en tant que promoteur laa da ciy am mais tey euh, combat bi tey euh, li daal rëg-rëg ci Bombardier mën naa am ci am na yoo xam ne yéen yéen su fekkee ne su fekkee ne tey Modou Lo dafa daan non mhm. doo dégg benn coow waaye bu sa daanee Modou Lo ñu ne combine la. loolu kenn du ko génne ci xelu Sénégal yi kenn du wax ba loolu du am. waaw dañ kat da koo yéene jox ko des arènes foofu lay mujjee foofu lay mujjee te pourtant man li ma gëm. da li ma gëm. ak ni ma jàmm gën tarki daay ak ñi ànd ak Siteu. Mm-hmm. ñoom duñ caaxaan dañuy bëree jéeg Modou Lo. Mm-hmm. te Modou Lo tamit li mu wane ci làmb. Mm-hmm. mësoo koo gis ci làmb mu muy wane nag kii sax ama am benn affinité ak moom. dëgg la nag diggante am nañu ay ndax man gis naa Modou Lo di bëre Siteu dem ci cumikaayam gis naa Siteu di bëri Modou Lô dem ci cumikaayam te yàggul dara loolu nag moom ay affinité yoo xam ne am na seen diggante kenn mënu ko bañ waaye nag li ma gëm mooy su fekkee kon d'accord nga bu jël combat bi waaw ah tension dina Modou Lô Modou Lô di bëre frère Siteu ñëw nekk si cumikaay Modou Lô ba laa ma ji ah waaw loolu yëpp. mais est ce que kooku tey est doon wax mooy nii. lii ah. ak Modou Lo. grand as moo la gën a xam ne lamb xajul fii de xëy na nag mari côté comme côté. mara seen côté côté wala Modou Lo kan la woon. lii sur Modou Lo Balla Gaye la lii bu nekkee amitié Modou Lo la. waaw maa nekk Modou Lo Balla wala Modou Lo Eumeu rek. ma laa ci rek. asanaas daan Siteu moo gën a yomb que daan. Sa Thiès wala non pourquoi nga mooy imposer Ibou Kane chaque jour da mooy imposer Tapha Tine man du wax ba tudd ko parce que bokku sama plan de carrière te dama koy imposer saa mais Sénégal yëpp ah? la ñu bokk na suñu plan de carrière. xam nga ñun da ngeen di jël waxu démb di ko ay di ko ay ñu wax. dañ ko ñu si hmm. pousse. kon li ngeen wax ni 2019 ngeen ko wax. mais avant ñu doon roi des arènes. Hmm. buñ doon lii la def suñ plan de carrière boobu loolu la ñuy topp. kon yéen nga wax ngeen bëri Tapha ci àddina bi lii ma la wax tey bind ko téere. ñu xam ne yàlla tuub dogal ko woon rek. Hmm. mais daal c'est pas forcé suñu mais daal li nga wax leer na moom. négociation yi si entre Modou Lo Sa la ak hmm. Modou Lo Siteu. te sori na. waaw jeex na. avant weeru koor mais dañuy xaaral résultat mais Siteu si condition yi nga Fallou Ndiaye wax mais Siteu xaar ah, ba ba ba ba. gannaaw yi ba. Uh-huh. ba mu bëri man Siteu dama gis dama dama jàpp tey lien li ko lié ak Modou moo gën a dëgg par rapport ak li ko lii ak Boy Niang te pourtant nee du bëri ak ndax ay lien ay liens yoo xamante ne peut-être mu ngi koy wax ay couleur rek yu demee noonu. Mhm. kon man foofu man li ma wax man. sama gëm-gëm waxuma nag mhm. mu yor la ñëpp. mais deret moo gën a fort ay roi Fallou loolu moom dëgg la. deret moo gën a fort alal ay millions bu ñu la mën a fayante am. loo xamante ne tey bi bu ma ko déggee daal yéen titre bi da ngeen ko bëgg yóbbaale waaw non loolu ah, da ah, ah. nekk loolu mooy am titre moom da ngeen ko bëgg yóbbaale. mais loolu loolu la ñu wax. wala ñu bàyyi ko teg ko parcelle asin teg ko tournoi. wala ñu bàyyi ko non day fekk ngeen nu nga ko bëree ñi ngeen war a bëree. non mais su fekkee boo ngeen bëgg a bëree ngeen doon bàyyi ko sax. non non Fallou Fallou attention xam nga yéen. c'est un leader boo xam ne il est tellement intelligent. moo koy indi fi mu nekk. Modou Lo daa intelligent. il est tellement tellement tellement. macha allah looloo ko fi macha allah mm-hmm. gis nga korom bii waaw lu mësul am ci làmb ji mooy am. yóbbu ko wala mu maye ko mooy dem ak koronam. wala mu maye ko wala wala. à part Balla Gaye mi dem ak victoire. non mais non père man non da nga naan. li ma mën a li lu mës mooy am. mooy yor couronne bi ne damaa bëgg bëgguma mm. bëre ku may daan. damaa bëgg a bëre ñoo xam daan. daan li la wax rek couronne bi bëgguma ci ay waaye nag su fekkee ne da ngaa nu say morom. Mm. waaw bi moom même soo koy yóbbu da koy yóbboo ci dignité. da koy yóbboo ci loo xam ne ñëpp a ciy d'accord mais tey mënoo bàyyi ko lamb. Mm. yor titre roi des arènes am adversaire potentiel bu toll nii Tapha nga ne bëre maa moom te damaa Ama Balde. majeure partie bi yëpp dañ demoon. Ama Balde xam nga ne lay bëree. waaw Modou Lo ba muy bëree xam nga ba ku toog ci law ba tey taxaw ne Modou Lo day tàmm adversaire Modou de du bëri ñu ñu mën a daan rek lay bëri da nga bëri ak Balla Gaye deux fois ah. bëri ak Eumeu Sène ah. de Guiers xool plan de carrière ah. Modou Lo naan Modou day tànn adversaire minimum de respect pour le roi des arènes Modou Lo bi taxaw nag Ama Balde ak Modou bi bëri ak Balde du benn Modou Lo bi taxawoon na bi bi combat bi taxaw Modou Lo bi bu waroon a bëri ak Ama Baldé waaw ak Modou Lo bi bëri ak Ama du benn loolu moom Sénégal gépp dañ koy nangu bëri booy ñëw non dama ne Modou Lo bi non bi combat du benn am na différence ndax combat bu fàtte ne dox na quarante ans wala cinquante ans ne bëri loolu dinañ si ñëw diggante bi mu ne xaj na fi mhm. dama ne man li ma nangu man Modou Lo garmi ak nit ku gëm boppam moo tax bi mu nekkee roi des arènes ñu ne arbitre ne pire mu ne jox leen ma Ama Baldé mm-hmm. Ama Baldé nekk seen lutteur bi gën a populaire mm-hmm. am ci doole am lépp nekk xale mm-hmm. man koo di gàllankoor bu ne mu ne jox leen mu jox leen ma Ama Baldé kon koo ragalul kenn mais nag am na diggante bu muy moytu diggante mag tafaat li mu ciy moytu nag la li ñu xamut loolu nag da ko war a leeral. mais Tapha wax naa ko Fallou Ndiaye dama comprendre Baol production la bokk Baol Baol la mbërëm lay wutal yoon <laughs> comprendre dama koy ah, accepter bu baax lu muy wax dama koy accepter bu baax lu mu wax parce que tamit li mu loo doon wax rek bitigu manga boo ah. ñëpp man lañ teg bët ah. mais may tànn yàlla dogal na may tànn ki may bëri mais parce que man dama am na fi ay mbër yoo xamante ne bokkuñu sax mais am nañ coloré affinité bu tax sax mbër kenn ku nekk wax sa morom ne bu diw yoree roi des arènes soxlawu ma. kon askan tey sa rak wala sa mag day day seek rakku kii man foofu man mënu ma gëm ne combat dina fa am tey ku ne gis na diggante Sa Thiès ak Quench. Mhm. boo xoolee Quench mu ne Sa Thiès bu yoree roi ndax lan peut-être affinité ndax lan coloré buñ boo xamante ne tey ñu ngi koy dund. moo Lo ak seen seen frère ak sœur di sëy ngeen bëgg wax ne combat mën na am foofu noonu conseil dis la man moom. Ah. mënuma d'accord ne combat mën na fa am. mën nañ bëre nag mayante xaalis d'accord mën nañ bëri nag bu ko daanee ñu ne da ko may couronne bi wala da ko wala da ko wala combine la hmm. d'accord loolu yëpp mën na am mais tey combat bu ale santé bu amateur yi di xaar tey hmm. man de personnellement yaakaaruma ne mën na fa am xanaa combat bu dañuy si xaaral père euh, couronne dafa neex waaw Modou Lo du masa maye couronne am boobu te day hmm. moom lay demee retraite loolu la ñu ñaan yàlla de bindal li ma la wax fii fii téere bi fii moom lay demee kon du bëre mais kon dootul bëre ah, xam ku muy bëre waaye bi ko muy gën a préparé ndax Modou moom da dégg kase bu noo xanaa kon Siteu non man du ma bëri kase bu kase kase bu noo waaw moo tax moo xam lañ si dégg as kase deux cent cent cinquante non bu ñu ma fayee lu ma jaral li may laaj bés bu ma ko ma ko toog di ko divulguer fii hmm. suñu làmb boolee bu ma d'accordee ñi hmm. ma war a d'accordee ku ma ci yàlla booleel ma jël ko bëri moom kon hmm. bi frankulaay na waaw ah, wax bi frankulaay na mais as xanaa nag li nga bëree ak Ama Baldé combat bi cinq ans xanaa loolu sa avenir loolu dootu la dal mais kenn noonu blessure. wallaahu alam non non combat boobu deux mille dix neuf ba deux mille vingt quatre mais blessure damaa gaañ mi ngi nii Gris Bordeaux kii ba léegi dañ ko mën a bëree. ba ama kii bu gaañoo pare kii gaañ. kenn sàkkuwul gaañu. kenn sàkkuwul gaañu. sàkkuwul gaañu. gis nga Iba. Ah, léegi Modou Modou loolu nan la dundee nekk deux fois conserver titre bi ñaari yoon loolu nan la ko dundee actuellement nii yéen yow mi nekk ak moom. nu mu ko dundee daal mooy gëm boppam santaat yàlla bu baax xam ne ah, ah. jullit la nag yàllaa ko ko may boole ko gëm-gëmam mhm. parce que tey nga naan ba su ma yàlla mayee lii ñi xale yi ëpp xale yi gën a të mhm. yëpp coow ñoom laay bëreel dëgg la yàlla may la ci ndam mayaat la ci ndam mhm. doo def lu sante ko suñu mu ñëw andi xarkam kanam bu bees ñu ñëw gis un Modou Lo boo xam ne gàllaaj da ko démystifier teg ko na la loolu yow xamoon nga ko wala c'était là da nga ñëw rek gis ko nii loolu na ngeen ko dund waaw ah, ma ne leen man mbër mi ci boppam am personne moom laa gëm parce que ba ñu toog naan droit des arènes ñooy gudd rëyul mënu ko doon mënu dara ci mag luur yi. Mm-hmm. moom mu ne dina ko doon gëm-gëm boobu mu amoon. moom la ma wanaat ba tey. li mm-hmm. ma ko laajee mu ne ma lii ak lii laay def lii ak lii ak lii laay def. Mm-hmm. ma ne ko loolu ak li nga ma wax nii mu ne ah man ko wallaahi man ko loolu laa gëm. parce que man gëmuma li ngay def yow sa bopp li may wax loolu laa gëm. mu ne ma da mën a xeex am fit ñeme fi nga jëm. mën a bëre loolu mooy do mën a bëre. waaw am doole. am doole. am fit am fit ñeme fi nga jëm. te daa ñeme fu mu jëm. moo ko indi fu mu nekk. moo ko indi fu mu nekk. mais nag gars yi ba loolu dañ ko ci saluer bu baax nag. Mm-hmm. c'est-à-dire lamb moom. dafa bari ñuy naxaate. te mbëri dañ leen nax da ngay gis mbër bëre ba bàyyi da lu lay am dërëm. Mhm. te lu ko a mooy maara yi nga gis. ñu toog mbëri dar ko rek daar mbëri lekk seen xaalis. Mhm. kon tey bu ñëwee yor titre roi des arènes. démystifier loolu. waaw dindi affaire mystique bi yëpp teg ko fële. ooya mhm. falal ko jël ay ndoxam yu sell jël ay alxuraan yu sell di ko sangoo. waaw kooku moom nañ ko ci saliyee bu baax a baax. dëgg la mbëri Modou Lo day na wax pour ñu bi seen bopp. Modou Lo day na wax pour ñu dem entraîner ji xam ne lamb entraînement la.